ñu yemale ko fii tey benn benn benn laa ilaha illa allahu moo moo doon adresse suñu wax ji mooy adresse lu nekk laa ilaha illallah dàq la ak saxal dàq na lépp lu war sa sax mooy bépp yàlla bu ñu war a jaam bu dul yàlla saxal na allahu ki nga xam ne moom rek a sax mi mel dàq na lu mës sa am saxal na lu fi mës sa jóg nafa ma lam yakun wa asbata ma lam yazal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 mu ne muj egg ji li tax mu doon lébal nit ñi ne taraktu hawa layla wa suuda bi maazalin wa udtu ila tasxiixi awali manzili فنادتني الأطلال مهلا فإننا منازل من تهلا من تهوى رويدك فانزلي من نقدال توبنا ليلى بصن توب ميلى بصن توب سعدا بصن ما مجمع من الناس شرط ما جوجيون بخم mu ne ma dellusi si fa ma déparé woon ma dégg tere yëpp naan ma li ngay wut fii la nekk wàccal mooy commencement tuub tuub du dara lu mooy euh, gannaaw li ngeen di tuddee tuub naan chrétien sangam tuub na mooy dugg na ci lislaam am na beneen tuub boo xam ne boo ca jaarul doo dem mooy bu jógee ci sàggan jëm ci yeewu moom la bàyyi tuddee woon al yaqazatu nee nag ku yàlla bugg a jëriñ ci yëngatu ci yàlla foog mu may la bés yàqazatu yaa ngi doon nelaw ni ñu bare nga xëy yeewu nee na boo yeewoo test ba nga koy xamee mooy dangay mujj xam ne euh, lu dul yàlla rek neexut te lu dul yàlla rek wérul dangay romb nag moment boo xam ne da ngay nekk ci angoisse boo xam ne angoisse bu neex la waaye bu métti la ndox yaa ngi bugg loo xamul noo koy amee yaa ngi ut loo xamul foo koy fekk bu la yàlla yërëmee nag ma tooy jooy noonu la koy firi léeg-léeg rhume nag dangay ngay mel ni ku feebar dajeeg médecin bu bu xam médecine te feebarut parce que bu xamee médecine te grippe itam boo ko jegee da ngay grippe mu ne su boobaa nooy def mooy dangay ngay seet koo xam ne nee na pare na ci yar boppam te am na ndigal pare na ci yar boppam comme monde universitaire mooy jot na ay diplôme am def na stage am nañ ko ci tableau bi kon am na ndigal mooy jox nañ ko bureau ak i moyen kooku moo la mun a traité boo demee ci ku jàng ba parewul dafa yow wa kullu harfin rek di wax lu kenn déggul moo tax mu booba yàlla lay wax ne fa firru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin te loolu cax la ndax yàlla wax nañ ne amul barab waris barab kon nag kuy daw jëm ci moom fooy jëm da ngay làmb toom am da ngay jëm fu la neex mu déedéet da ngay jëm ci diineem dëgg la ci cadre na dëgg la mais nag foog nga jaar ci koo xam ne pare na ci yar boppam te am na ndigal mu di la wan di la digal di la tere ngay roy ci moom te nga nekk ci biir cadre na foofu la ñëpp jaaroon te foofu rek yoon wi jamono yi daan misaalee pour ñu jàpp ko ab yonent bok ci ul azmi min rusul mooy yonent yàlla musa mës wax dara yàlla tontu ko duggal ko ci ben imtihan amna ci xam-xam mais xamé nañ ci ne itam xam-xamu yàlla amul fu mbem yem mu ne yàlla ndax amna ku melni man ci xam-xam ñu ko waaw ma ngi jambo xane mom ne moom jaarale ma ci kenn aateenaahu min laduna ilman mako communiquer directement ken jaar mu ko fum ne comme mbir mi dafa tumuranke tontu li sax day tumuranke mu ne ko waaye utal yóbbal rek di dem boo demee gisutoo yóbbal bi rek da nga ko gis ci misaal sax kenn noonu la sa bakkan bii ngay ngand ngandal waxtu woo ko fàtte woon rek dal di gis dëgg <laughs> xijaab bi gën a mag mooy ba parce que yi amul solo ba mu àndee ba mu ne ko damay ànd ak yow ci ngay xamee ne taalibe xam am na ñàkk xam am na xijaab am na inkishaab am na am ba nit ñi duñ benn tabaxa la bon mooy ka woote lum yegul ku wax lum xamul ku jël dëgg di ca wut caaxaan waaw kon nag da ngay kii mu mu ne ko ah man de dama la bëggoon topp daal ndax li nga xam ma xam ca ak am ca gi parce que yonent la mu ne ko ah mën naa am waaye nag man li ma am ne dafa compliqué de doo ko mun a supporter de ab yonent mu ne ko waaw yaakaar naa ne daal di wax daal teg yi mu ne ko kon nag kaay waaye bu ma laaj dara nag yow daal ne fatt rek loo gis rek enquêteur waaye mënu koo muñ ndax rey nañ fa nit te moom mooy nabiyu shariat yàq nañ fa te moom bëggul kuy tooñ am na ku leen toroxal ñu bëgg koo teral nanguwu ko mu ne ko yooyu yëpp nag kaay ma firil la ko te dàq la yow mënoo ànd ak man waaw sëñ bi lii kay xanaa jëm daal la yonent yàlla Muhammad ne nag Moussa yàlla na ko yàlla yërëm suma mbokk la waaye bu mu ñëwoon dina xam lu bare waaye nag ba ñu waaj a tàggoo Xadir benn picc naawee fa rek cof dara ci géej gi rek dem waaj nag dernière leçon mu ne ko gis nga picc mii lim cof ci géej gi suñ boolee maag yow liñ xam ak ci yàlla mutul sax li mi cop ci géej gi moo tax bàyyi doon wax ne gëm moo wóor rafet njort moo wóor nee na bu ma ne bu ma la joxoñee sàmba ne la kii arat lay fanaan xamum lu ñu fanaanee arat sax waaye yow bul weddi ndax boo ko weddee woote nga loo mënta lay ndax mooy gis naa si jilaatu yàlla bindi mayam yépp yi may mi dee fi may googu nekk ci pour waa ji te mu ne loolu fen mag la buñ ne baax na gëmal buñ ne bon na jëm koo layal bu la wóoree ne bon na mu ne jëm koo laaye biir ndem yaa ko tane diine bëgg yàlla la ak bëgg yonent bi bëgg yàlla foog nga xam ko xam nga ñu commencé ci faalam annahu laa ilaha illa allahu di laajte ñu lay wax ngay gëstu ñu lay won ngay jëf ñu lay sawarloo ngay daanu ñu lay yëkkati ngay bàkkaar di tuub ba nga xam ne da ngay dem ba romb nag fi nga xam ne ñi ko romb yépp boobu nekk ci jëw romb nga bànneex boobu nekk ci tayal romb nga témérité bi nekk yàpp lu sa morom rem romb nga romb nga romb nga yooyu ay xam ne boo ko rombee nag da mujj yéeg nag bànneex bi nekk ci nekk li nga nekk te mësoo koo ñàkk nekk te mënoo ko ñàkk nekk parce yow doo dara yàlla rek moo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax xamle nga te faat ani dëgg-dëgg xamle nga te ilmu ci boppam xam-xam ci boppam ni ko boroom xam-xami tawxiid yi xamle mooy idraakun jaazimun mutaabiqun lil waaqi naache ani dalil gayre qabil li taxayur mu ànd ak ay argument yu wér argument yu wér ca du nangoo soppeeku loolu mooy xam-xam oustaz ca saal ba di def conférence su fekkee loo xam la ku ñëw dana ko fekk muy def conférence ne mooy idraakun jaazimun mutaabiqun lil waaqi naashi an dalil gayr qaabil li taxayur du am changement te joxe nga fi xam-xam bu leer ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla beneen yoon di ndokkeel suñ mbokki étudiants yi at mu jot ngeen def ko nit ñi jëriñu ci ngeen jëriñu ci képp ku ci jëriñu yool bu mu ci am moog yéen a ko bokk ci loolu yonentu bee ko wax wax nga ci kalimatu tawxid loo xam ne suñ ko doon sharx fii ba suba di ko expliquer du jeex ubbee nga sa jataay ci ay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 ndax ñi ci ëpp dañoo jeng li koy firnde rek mooy yonent bi ba mu ubbee màkk benn waaye xool na ko rek di lox ba bugg daanu yonent bi na ko lan la looy lox man duuma buur benn nit rek laa boo xam ne benn jigéen a ma jur bu daan seeñaatu ay el fii ci mag jarul ngay tiit ndax xam na ne inna al muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jaalu ahliha azillatan wa kadalika yafaluna moo tax yonent bi buur la ci kaw nu bi waaye buur bu ànd ak àdduna la moo tax mu ne ko man duuma buur benn jigéen rek laa bu benn waaye rek laa boo xam ne jigéen ji ma jur fii la daan señaatu el jarul ngay tiit wax nga ci taqwa ni ko Cheikh Ahmad Tidiane firee bàyyi itam firee ko ko imtisaalul awaamiri wa ijtinaabi nawaahi fi zahiri wal batini min xaytu yarda allaha la min xaytu yarda al abd topp yàlla ci li feeñ ak ci li nëbbu ragal yàlla ci li feeñ ak ci li nëbbu ci ni ko yàlla buggee paa ni nga ko buggee yow loolu mooy taqwa bàyyi nee na taqwa miftaax jamil masaalibi dunyawiyati wal uxrawiyati maan li kulli abdin ragal yàlla mooy caabi ji nga xam ne caabi àddina ak àllaaxira la ci aajo boo soxla wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan واتقوا الله ويعلمكم الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة kon taqwa mooy miftaax jamii al mataalibi dunyawiyati wal uxrawiyati maan comme ni ko Baye waxee Cheikh Ahmed Tidiane waxee wax nga ci nim diisee ne ragal yàlla ci kem sa dayo taqullaha mastafaatum la alquran wax lépp lu leen yonent bi digal na ngeen ca def la ngeen mën lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi définitif wax nga waa ji laajoon yonantu ngir xir bi mu waxee ne yàlla digal na leen aj inna allaha qad farada alaykum alhajja fa xujju fa qaama rajulun fa qaala afi kulli aamin ya rasul allahi fa sakata rasulillahi sal allah alih wa sallam xatta qaala salaasa wa qaala zaruni ma taraktukum walaw qultu naam la wajabat ولما استطعتم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منهم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كي ينتبه وخوان نكو يالا فرسال نتين أجمو نكو ندخ أدمو جد سوف ينتبه نوان واو رك يلا نواو ندخ يالا في القرآن جغلونا عربي بري والله ورسوله حق أن يرضوه wax ci ñaar ca fin ba mu jagleel ko kenn te ñoom ñaar ci la doon wax jagloo na arab yu bëri kon laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu mu wax rek loolu yàlla ko wax wax nga ne yaay wan naasu nit ñi wax nañ ne waxtu ko yonentu waxee rek waa màkka mufassirun yi ci bari loolu lañ wax waaye naasu mooy nit ñëpp xëy na booba yonent bi milieu bi muy waxee moo tax ñu jagleel ko milieu boobu ndax diine ji tasaaroogut génn màkk yaay wala dina amanu fu ñu ko waxee rek ndigal ñi def wala tere ñi bàyyi comme ni ko ibnu abbas waxee nga wax ko léegi yàlla ne na inna akramakum indallahi atqakum te loolu lu wér la la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li aswada ala moom lañ digal julli di comme niñ ko digalee yonent yi yaa ayuha rusulu kulu min atayibaati wa amalu salihan jëf ak lekk lu tey rek lañ digal ci te dafay tax nit ki am di jaaba buy ñaan yàlla Saad ibn Abi Waqaas laaj na yonent bi na ko ndax dooma ñaanal ma am di jaaba yonent bi na ko atib matamaka takun mustajaaba daawa teyalal li ngay lekk rek yàlla nangu sa ñaan bañ cee boole lu ci bokkut rek boo ñaanee yàlla mu nangu faalam annahu la ilaha illa allahu wa ma za bada alxaq illa dalal xamal ne yàlla rek moo fi nekk wala yàlla rek lañu war a jàmm ndax gannaaw dëgg neen rek a fa nekk ca neen du dara bañ na ko ba ci lugal arabiya alxalqu mooy neen maanaam ca neen du dara ca xalqu buñ ko waxee rek mooy mindeef yi kaan allahu wala chey maahu wa wala ana ala ma alay yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut Ali ibn Abi Talib ne ba tey sax moom rek a fi nekk wax nañ ko démb ne bàyyi ne na aarifu billaahi war naa seetaan cinéma donte benn yoon ndax ci lay gisee dara te lim loolu am te loolu amut yaa ngi xool écran bi gis ci ñi football te boo tojoon écran bi doo gaañ kenn kon nekk ak mbindeef yi dañoo nekk ca nekkuñ loolu tax mu ne ko walaana ala ma alaykan bàyyi ne ku ne maay yàlla ñuy wax la lu nekk mu ne yow waxoo ko yàlla moo ne mooy yàlla yow waxoo ko waaye nit rek du wax ne maay yàlla gërëm nga ñi teew ngir uy si la sant lay sant leen itam ci liñ la sànn waaye dañuy wax ne sant warut ci lu war waaye bàyyi mu ne war na ci lu war ndax nit ñaa ngi bàyyi li leen war defuñ ko kon ku def li ko war war nañ koo sant xanaa ci bunt boobu rek ngay santee ñu teew waaye ku fi teew sa njëriñ a tax ne nga faalam annahu laa ilaha illa allahu ku ko wax rek boo amoon ci kéeféer juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent bis boobu xamal ne dara toppatu la ci bàkkaat ndax al islaamu yajibu ma qablahu loolu la yonent bi wax islaam dafay effacer lépp lu ko jiitu ci lu ñaaw boo ci duggee rek lépp lu ko jiitu ci lu ñaaw dafa mel ni mosoo koo def ni nga juddoo ci sa biiri ndey bi ne na man qaala la ilaha illa allah daxala aljanna wa in zana wa sariq doon ci dafa njaalo sàcc abu zarri ne ko wa mu ne ko wa in zana wa sariq mu ne ko wa in zana wa sariq mu ne ko wa in zana wa sariq waaye ku wax laa ilaha illa allah muy dëgg ci yow dana dox sa digganteeg ñoom ndax inna salata tanha anil fahshaai wal munkari wala zikrullahi akbar su fekkee salaat tanha anil fahshaai wal munkari te yàlla ne wala zikrullahi akbar kon laa ilaha illallah dana dox sa digganteeg loolu su fekkee dëgg la ci yow wala zikrullahi akbar bàyyi firi na ko nee na duun ne wax laa ilaha illallah rek moo gën a màgg waaye sooy lekk xam ne yàllaa la digal nga lekk sooy naan xam ne yàllaa la digal nga naan ndax moo ne kulu washrabu sooy dox xam ne yàllaa la digal nga dox siiru su boobaa rek looy def rek xamal ne yàlla moo tax nga koy def da ci fajoo ajo am ci itam yolof yàlla nee nga laa inaatee lil jinsi la dafa dàq lépp ba pare saxal yàlla rek wax nga borom xam-xam yi liñ ci wax wax nga ne am na koo xam ne nim firee laa ilaha illallah rek loolu neex yàlla wala ci grammaire li wax ne araful maarif ci la duggee aljanna ndax gisu beneen firi bu mooy loolu wax nga ne bàyyi ne na nit amul benn xiima lu dul askanoo yàlla rek te loolu mooy dëgg wax nga ne xam yàlla dafa am ay meññet xam yàlla ku nekk xam ne dafa am ay meññet ndax Baye dafa wax ne ki nga xam ne dafa xam yàlla ba pare am lu koy attire muy dem ci pay boobu mu xamee woon yàlla ba mu gën a ragal yàlla gën koo jox ay wax waxtu dañee ci pay boobu rek dafay fàtte ne xamoon na yàlla mu ne su boobaa dafay mel ni ku tëddoon di gént lu ne eew dootul gis dara moo tax nga gis nit mu naan la man fàtte naa ndax damaa tarbiyoon xaw ma ndax eggoon naa wala egguma loolu moo koy waral ndax dafa jugee ca pay ba mu xamee woon loola duggaat ci beneen pay su boobaa jikko yu ñaaw ya koy topp dafay dàqwanteeg pay ba nga xam ne jikko yu sell rek a fa nekk su boobaa dafay mel ni ku doon gént eew du gis dara wax nga ne al ismatu lil anbiya yonent yi rek ñoo tële mooy wax nga ne jàng aaya ji qul innama ana basharu mislukum yuuxa ilayhi qul innama ana basharu mislukum te eggoo ci kii loolu jéem a gàttal darajaay yonent bi loolu ko def yàlla dana la fay fay goo xam ne ku weddi na laaj ci toogoon di xalaat rek ne su fekkee ne yàlla wax na yonent wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda danaa la jox ba nga gërëm mu ne kon képp ku dugg safara rek ci gàtt itte yonent bi la xalaat rek la def waaye gis nañ li ko yàlla fay daf koo xalaat rek nga ne ñooña dañoo gisoon ne maa li rasul maanaam kuy wax loolu innama ana basharun rek noppi kooku dafa gis ne maa li hada rasul yaakulu taam wa yamshi fil aswaq maanaam kii benn nit la rek comme ñun di dem marché di toppatoo ay soxlaam yi muy sëg di baax waaye du kooku nga ne wastaxfir li zandika te yonentu jomb na ci moom bàkkaat firi nga ko ne mooy saxal ci istixfaar comme yaa ayyuha nabiyu taqillaha yow yonent bi ragalal yàlla mooy sabbit yonent bi boole woon na ko ci ay ñaanam yàlla yàlla nga saxal suma xol ci gëm yàlla su fekkee yonent bi mooy ñaan loolu nag ñun waxi noppi wax nga ne al alxasanaatu labraari sayyaati muqarrabin loolu yahud yi sax xam nañ ko seedeel nañ ko isa mariam bañ ko tuumaalee njaalo dañ ne ko maa kaana abuki imraan sawiyan wa maa kaanat ummuki baxiyan ñun day xamuñoon sa baay muy nit ku bon xamuñoon sa yaay itam muy njaalo noo def bay njaalo maanaam kooko njaalo ees na ci moom ees goo xam ne niroowut koo xam ne baayam ak yaayam daf ko doon def gannaaw yahud yi ñoo mën a wax loolu kon xasanaat labraari sayiaat almuqarrabin ne nga yonent bi wax na ne man danaay balu yàlla téeméeri yoon ci beneen xadis mu ne juróom-ñaar fukki yoon nga ne juróom-ñaar fukki bi nammuñ ci lim waaye bëri gi lañ ci namm loolu mooy li Baye wax Baye ba muy firi ci li yàlla di wax istaghfir aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabina marratan fa lan yaghfir allahu lahum boo leen jéggaloo juróom-ñaar fukki yoon du tax yàlla baal leen nam muñ ci lim bi bàyyi mu ne arab buy jàngale naxu daf lay wax ne jamoo mu ngi commencé ci ñett maanaam pluriel mu ngi commencé ci ñett jëm kaw nga ne waaw mu ne la ca lim mu ngi am ci fukk nga ne waaw mu ne la su fekkee lim mu ngi am ci fukk te pluriel commencé ci ñett buñ dindee juróom-ñaar yi nga xam ne moo tegu ci kaw pluriel ñett juróom ñett yi nga xam ne moom la lim pluriel commencé juróom-ñaar a fay def mu ne moo tax yàlla ci cadre boobu buy wax ak ci naan leen léeg leen mu ne juróom-ñaar sabaatu ab xurin léeg-léeg mu fëgg ko muy juróom-ñaar fukk sabina maratan léegi leen mu yóbbu ko ci juróom-ñaar téeméer suba miyeti marra mu ne ci kaw loolu ci la yàlla di jëflante xeli nit ñi ci tudd limi juróom-ñaar waaye du rek namm lim bi bëril gu ko arab baril moo tax wax nga li yonent bi wax ne xayaati xayrun lakum wa mamaati xayrun lakum su nekkee ci suñ biir bu ñu waxee mu àtte ñu su fi fàddoo itam xëy na danañu témoin témoignage boo xam ne danañ mën a mucc ci lañ defoon loolu dàqwante dàqwante wut teg li Baye wax ne qad zallat li baadi minhum aqdaamu fal tasmaan lahum fa fiika hamun maanaam rabbal ibaadi bi Baye di wax ne am na ñoo xam ne tarxiis nañ waaye nag yàlla nang leen jéggal ca xam ne rek dañoo ngëlamaan ci sa biir moo tax ñuy tarxiis léeg-léeg réeree yàlla ak réer ci biir yàlla bokkut réeree yàlla moom la ñëpp di muslu waaye réer ci biir yàlla moom la boroom xam-xam yëpp di ñaan wax nga ne al badri ba yonent bi taxawee di wax ak ñoom ña ngay dégg alquran la mu wax ndax la leen seen boroom digaloon dahaloon gis ngeen ko maa waada rabbukum xaqan qaalu naam lam leen doyaloon gis nañ ko kon nag wax ak nit ku dee mu lay dégg ca mënta tontu loolu sunna daf koo saxal ku ko dàq itam sunna nga dàq wax nga ci turuq yi ne duñ lu dul ay école yoo xam ne dañuy defar nit Baye wax na ne bu ko yàlla mayoon muy soppandeku ci xol yi rek lay soppateku pour defar ko wax nga li la waa ji wax lu tax ngay tënku ci tariqa nga tontu ko ne ko wamal wirdu illa istixfaaru summa lillu wasalu ala almuxtaar wirdu du lu dul rek istixfaar laa ilaha illa allah salaatu ala nabi te loolu ku ko dàq alquran nga dàq nee nga yonent bi nee na moo leen gën a xam yàlla moo leen ko gën a ragal indi nga ci misaal léebu ci xale yi ak gaynde gi waaye nag li xew ci jamono bii ci li gën a bari ci taalib baay jàpp ne boo eggee ci fanaaw rek waroo faa jugee lu neex ngay def te fanaawu xaal la ca xaal mustaxil an yaduuma xaal mënta sax maqaama mooy sax waaye xaal du sax te bàyyi mu ne képp koo xam ne dangaa emale sa bopp ci fanaawu fa wa sabiyun kooku xale rek la du dara ndax bàyyi mu ne fanaaw ci boppam mooy jeex ci jeex jeex ci boppam nga jeex ci moom dellu siyaat te xam ne yàlla rek fi ne nekk salli sum wa sil wankihan fa ma sama gayru mustafa wa awlaaw kooral jullil takkal jokkal mbokk ca xamal ne dara nekku fi li du yonent bi ak meloon loolu la bàyyi wax kon nag jeex ci jeex loolu mooy xam yàlla nee nga wax ji dana bari baay baay loolu la misri waxoon bés dana ñëw baay baay rek ngeen di dégg wala maaw maaw maaw si ton ndax boobu communiste yi bari nañ fi misri ne bés dana ñëw ben ngeen di dégg bàyyi bàyyi wala maaw maaw maanaam ñaari pays yi danañ xeex wala ala inna xisballahi humul muflixuna ala inna xisba cheytaani humul xaasiruna kon nag maaw maaw déggatuñ ko te ñam jugee woon sax ñoom ci seen bopp dañ nañ ci fi mu ne dara desut fi lu dul bàyyi bàyyi ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا yàlla moko wax yonent bi sula sobon suma sobon ñëpp gëm wax nako ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du ne ku la neex nga jubal man lay neex in alayka illa al bala jotal mo la war waye ñi gëm man la war ne wala ko kuzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من nabai المرسلين fa in kaana kabura alayka iraaduhum fa in istataata an tabtagiya nafaqan fi l ardi aw sulaman fi samaai fa taatihim bi ayatin walaw shaa allahu la jamaahum ala al huda wala takunanna min alzalimina su neexoon yàlla rek mu boole leen ñoom ñëpp ci njub waaye kon su fekkee dañoo fetteerlu ba yow nga bugg cee rey sa bopp bugg a xotti suuf si dugg ci wala ngay eeg ci asamaan si yooyu yëpp bu soobul yàlla mënta nekk lestaaleyim bi mu saytir wa ma anta alayhim bi jabbaar wax nga ci Ahmed Sukayri yi ak doomam Abdou Karim ak sa jataay ak moom ak la ca bàyyi xool ba muñ bàyyi xam ne démb xam tey boole ko xam lii nar a ñëw ndax ci alxuraan rek lay wax ci alxuraan looloo ko tax a jóg nee nga yonentu yàlla ibrahima ba ko yàlla ne ko aslim daf ne aslamtu waaye yonent bi kenn déggut fu mu waxee ba yàlla ne ko faalam mu ne alamtu déedéet moo taxit it nga ne nattu jot na ibrahima dëgg la kee dafa jébbal mbir yàlla ndax tafwid la def ndax xam ne ne ndigal li dana ko protéger ba mu jaar ci lim yàlla bugg kenn nag dafay wane ne ci nguuraam lay demee wax nga ci diggante Muusa ak Xadir muy jaami yàlla boo xam ne yàllaa ko tànn jox ko xam-xam mu tukkee ci moom ci lu du dul waasitat kon maqaama sadiqiyatu lañ ko mën a seedeel ndax li Baay wax as-siddiqiyatu man yaaxuza al-ilma an illahi bila waasitati wa laysa bi nabiyin yàllaa ko jox xam-xam mu tukkee ci moom ci lu dul dara mu ànd ak Moussa di ko examiner jox ko condition mooy ne bu ko Moussa laaj fekk expliqué lu ko bàyyi mun a taalibe ak sëriñam comme jaam ak boromam la ndax fataawu la ko yàlla tuddee foofu mooy ne kon jaami xadir la woon parce que mu ngi sàkku ci moom xam-xam xotti na géej gi rey bakkan defaraat taax mu yàqu ca fayuñ ko yëpp Moussa di ko compte ndax lim xam ak lim gis nii bokkut lim xamoon ak lim gis bokkut wala lim xamoon ba mu janoog sëriñam daf koo fàtte comme ni ko Baye waxee fa arattu anaay ba xadir ne moom moo defar yàlla ne ko yow yaay defar wala man mu ne fa arat naa yàlla ne ko ñun ñaar ñooy moroom mu jël mbir yi delloo ko yàlla ne fa arada rabbuka yàlla rek koy def yàlla rek namm bàyyi mu ne taalibe léeg-léeg bu toogee ci kanam sëriñam xëy na lam xamoon dafay effacé wu sax ndax tiitaange ak xëybatu sëriñ gi mu ne waaye Moussa li mu doon laajte noonu yëpp moom ci boppam mos na koo def parce que mu ne su fekkee sànni xotti gaal danay tax a lab ba ko yaayam dugalee ci kees sànni ko géej gi lekk ko waaye yàlla wattu woon na ko ba géej gi lekkut ko mu ne su fekkee rey bakkan ci lu duut bakkan la fekk na ñuy xeex mu dóor kenn ki mu de foo ko zaw Moussa mu ne su fekkee defaral nit te du la fay moom rootaloon na doom yonent yàlla Shuayb bi te ko dara mu ne kon li muy critiqué yépp moom mos na cee jaar xanaa xëy bëtu sëriñ ji ko yàlla booleen moo tax mu fàtte loolu nga ne boo waxee ne bàkkaatuma borom sufiyanke yi ne boo ne bàkkaatuma rek bàkkaat nga ndax saxal gi nga saxal sa bopp rek mooy ay nu bàkkaat wujuduka zanbun laa yuqaasu bihi zanb amal gi nga amal sa bopp banaan defuma rek mooy bàkkaat bu mag bi kon nag faalam annahu laa ilaha illa allah dara nekk fi lu dul yàlla wax nga ne ñëw nga ci bàyyi di tuub ne ko damay tuub bàyyi na la lan la loo def te fekk defoo dara yëg gi nga li bàyyi di yëg noppee ko di ree yow nga mos mooy li olof yi di wax li jot ganaar ba muy billax ndeku mu ngi ci ñaay ci yëngatuwul xëy na booba fees gaa des rek ndax barigo bu feesee du yëngatu <laughs> ne nga imaamu tabari sëriñi mufassirin yo nee laa maabudu yanbagi uluhiya illa allah dalika bi ann allah huwa alxaq wa anna ma taduna min duni albatil yàlla rek mooy dëgg te dëgg mënta nekk ñaar te bu fi saxee rek neen mënta sax ne nga yonent bi ne na ommat gumba rek dafay faas bàkkaat bàyyi wax na ko ci ruuxul adab xudwatul ama omat gumba pour jàllale ko rek mën naa faas bàkkaat boo xam ne bu rëy kon nag yàlla dara tuutiwut ci moom ci jëfal ko dara itam éemu ko ci rëy taxsibunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim wax nga ne bàyyi ci waxam wala jëfam lépp sant la xataa bam ne ba muy wax gis gis gis yonent bi sax dem jiital foofu alhamdulilahi kulluhu raaytu rasulallahi jaran wa yaxzatan bu fekkoon ne am na sant gu gën a kawe loolu rek moom la bàyyi di wax ndax fi ko yonent bi toll tolluwut fa benn ñu ndéef te loolu bàyyi moo ko wax ci machet bu mu gis yonent bi seedeel ko loolu nga ne sibli ne na waasa waasa wa in xufira ñaaw na jéeg doon fi yàlla jéggale na ko ndax waxtu wu xalaatee lam def rek ak lim fay rek liñ ko defal ak lim fay rek xam ne ñaaw na wax nga li arab bi waxoon bëri na bu ma ko jàngalee woy ba mu mënee woy man la njëkk jan jam wala man la njëkk a xas waaye nag ñun dañuy wax rek la olof yi di wax lëg bu gërëm bu lekkee cooy na ko gërëmee alom lëg bu lekkee alom na ko gërëmee cooy bu ñuy toog fii di mën a wax ci yàlla benn baal rek nañ ko gërëmee bàyyi وخنجاتي التوحيد بين الطرق ومختلف المدارس والفرق من قطع لما كل ناس مشربهم لو رك لا دون واخ سي كوماسماي كي بي ني نيت كو نيك وارنا خمنا نو وايم سي جتاي بي سي تار بي سي لو نيك واي رك امنا لوما سي دون كوريجي ndax dafa metti won suma xol te xam naa ne bu ma ko defoon ñoom ñu corrigé ma itam danaa war a nangu ndax nit ki lim moom ak lim bokk ak nit ñi ak li nit ñi moom bu ko xàmmewut ci ay lay dëkk benn waru cee jaxasoog moroom nga ne aarifu billaahi moomu dara dara moomu ko ndax aarifu billaahi du kenn kudut koo xam ne dafa jeex ci yàlla ba mujj seey fa yàlla moomu def yàlla bu fi defee moom kenn moomu dara dara moomu ko ndax moomu jëmmam ji jëmmam ji moomu ko benn dof dafa ñëw fekk ay nit toog mu ne ma laaj leen ñëpp toog mu ne ndax yàlla mën naa bind xeer woo xam ne du ko attan soo ne waaw musiba la soo ne déet musiba la ndax boo ne waaw am na lu yàlla mënut boo ne déet am na lu mënut waaye loolu laaj ba moo baaxutoon kooku xëy na arif billaay rek moo ko mën a tontu ndax su demee ba nga xam ne moomu dara dara moomu ko rek war naa mën a àgg foofu wax nga ne am na bi gaa ñi demee ci weer wi benn borom xam-xam bu mag ca Maroc taxaw di ko weddi gis na dafa dàqanteeg sunna ak alquran waaye kooku utee na ak Baye Baye daf see bindoon lettre 1963 yónnee ko Nixon ànd ak lim ko bañ yépp waaye bokk na ci mbir mbiri Baye mu nangul ngëneel keneen su fekkee ne ngëneel loola kookoo ko def ca dàqante wut ak alquran bàyyi dafa bind Nixon lettre ne ko maa ngi lay gërëm maa ngi lay ndokkeel ci xam-xam bii nga xam ne doomi Amérique ñoo ko def muy ci temps yi Apollo 11 ndax sëriñ yu bari dañ leen a laaj ñii naan suñ nit ñi demoon ci weer wi danañ leen gis ndax weer waa ngi nii ñuy gis dalika mablaghum min al-ilmi foofu la seen dayoo xam-xam ñi naan loolu mënta am dafa dàqanteeg alquran fàtte nañu wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna waaye ba bàyyi bindee dafa bind Nixon lettre bi maa ngi ko amee joxoon naa ko étudiants yi bu yàgg xaw ma ñu ngi ko amee déet daf leen a bind daf koo bind ne ko ñu ngi lay ndokkeel ci xam-xam bii feeñee ci doomi Amérique yi gannaaw boo xam ne plan bii nga xam ne ñun dem nañ ci weer wi Kennedy moo ko tegoon biñ koy exécuté mu génn àddina nga uutu ko ci fexe bañ def ko ñu ngi la ciy ndokkeel waaye li ci am chance rek bàyyi mu ngi koy wax ne ca feema ak lu mën a xew rek xam-xam bi maa ngi ñaan mu nekk njëriñal doomi aadama te bañ a lekk seen loraange waxul sax mu nekk njëriñal jullit yi waaye nit ak nit rek parce que wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin lu dul yàlla rek dugg na mindeef bu nekk yonentu wax na ne booy rey sax na nga gaawal paaka bi ci kaw li ngay rey ndax bu mu yëg métti bi kooku foofu la yërmande am na nga nëbbu li ngay rey paaka bi pour bu mu xam ne danga koy rey bu fekkee njaayal la sax xar wala béy kon nag bàyyi mu ngi ne yàlla na nekk njëriñ ñeel doomi aadama yépp ca bañ a nekk seen loraange wax nga ne li Busayri wax wax na ne yonent bi mos sa waaxu ndax waaxu xemam li nga jëm la wala ragal li ñëw ci yonent bi loolu dara mos ko cee jot lim jëm xam na ne yàllaa ko dogal dana ca jot li ci gannaawam itam xam na ne yàllaa ko wax wallahu yasimuka min annaas du agsi ci moom kon moo tax mos sa waaxu wax nga ne am na benn borom xam-xam ci égypte lañ ko rayee rek mooy wa wallazi fi samaai ilaahun wa fi l ardi ilaahun muy sayid qutbu te maalim fi tariq ci téere boobu bi mu ko bindee wane ne yàlla mi atte ci kaw moo war a atte ci suuf gaa yi ne ko da ngaa bëgg a wax ne Abdou Nasir réew mi da ngaa bëgg a oote parti islamique nangam nangam tëj ko indiaat ko ne ko ci li nga wax mu ne du ma ci reculer parce que waxuma ma ko yàlla ko wax bàyyi bokkoon na ci ñi bind leetar di ñaan buñ ko rey waaye ba muy àggat fekk nañu rey ko kon nga xam ne jullit fu mu mën a nekk rek jàpp ne ne kii mbokkam la ci diina te bàyyi na ne al ixwatu fi diini wal wa tariqati mbokk daal ci diina ak tariqa bi rek moom la jàpp ne mooy mbokk waaye mbokk ci deret rek kooku mën nañ koo jàppee mbokk nee nga am na benn taaliba bàyyi ba mu gisee nit ñi di wër kaaba gi mu leen di ñaanal ndax gis na ni ñuy jooyee ak ni ñuy ñaanee amul lu mu leen dimbalee waaye mu participer ca ñaan ga di leen ñaanal yàlla loolu la Seydina Omar defoon ba atam sedd bi méttee mu xam ne man euh, jox saxaaba yëpp mbubu dafa participer ñoom bokk ci summeeku pour yëg sedd bi comme niñ ko yëgee man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum koo xam ne mbiri jullit yi itteelu la rek bokkoo ci ñoom moo tax bàyyi yar ko ci yar boobu ba ba mu gisee mbokkam yi di ñaan mu leen di ñaanle ca xamuñ na sax mu ngi leen di ñaanle waaye loolu mu ngi ko jëlee ca bàyyi ndax bàyyi waxtu ñaanee dana ñaan ne yàlla na yàlla jox teraanga jullit yi kon bàyyi ma solo kenn ci jëriñ nañ xal sey boo ko ma sa gis boo ko mos sa xam sax xamoo ne moo lay tëbb ci baatin sax mos naa toog ñaanal la yàlla loolu kenn mënu koo fay te laa lor damaa dem Saudi ren benn naar invité ñu maag Baba Lamine këram di waxtaan ak ñun mu ne ajkat yi daal man damaa éemu ci ñoom mu ne damaa romb benn waay fekk maa ngi ànd ak benn kilifa saoudien ñi wër kaaba gi dégg benn waay muy wax ci kaaba gi ne yow yàlla nang ma baal sama bàkkaar yi te baal ma nag moo gën ci yow ndax soo ma baalu danaa jaar ci sa bunt mu baal ma ca doo ci ma ndar benn naar bi tiit ne ok waa ji ba mu gestu ko mu ne ko man ñetti yoon laa aj may naa la suma aj yi ca nga may ma sa ñaan gi waa ji ne ko déedéet ndax man ki may ñaan xam naa ne force mu nangu li ma koy ñaan te aji waa ji ndax nangu nañ koo lëgéey ne nga sunna nit ñi war nañ koo xam sunna mooy loo xam ne sunna ma faalahu rasul aw xaalahu aw aqarrahu sunna daal ci gàttal mooy lu yonentu bi wax wala mu jëfee ko wala ñu jëfee ko ci kanamam ko ci place imam ibaratuna shatta wa maanaka wahid ne nga Omar ibnu Xataab buñ ko examé woon rek du jàll ndax seen jëm jugee woon pour jëm ci yonent bi waaye nag al islaamu yajibu ma qablahu wax nga li bàyyi waxoon bëkk néeg ba ba mu demee ñaani jabar ñi dàq ko mu ne bàyyi kii daf maa bugg ba mu demee di ñaan jabar ne bàyyi kii man la bugg bàyyi na ko kii man la bugg loolu mooy barakatul musaaxaba barke àndaale loolu lay jëriñ soo gisee ñi tudd xaj ci alquran ànd ak nit ñu baax rek a tax ñu tudd ko bàyyi mu ne yonentu yàlla Moussa ñeent fukki at yi mu nekk ci wélamande yépp ànd gi mu ànd ak Firawna mu bon moom moo ko teg waaye firaaw na li ko teree alaku ci ñeent fukki at yooyu yëpp ànd gu mu ànd ak musaa mu baax mi moo ko tax moo tax kon nag barakatul musaahaba loolu la bàyyi di junj waa waaye du jëmmi waa ji moom lañ bugg kii ñu xool ci moom moom lañ bugg wax nga ci achar yi ak malik yi ak junayd yi ak li nit ñi wax ci ñoom te ñu war koo dindi loolu dëgg la conférence bi bari war na ci am pour ñu wéral loolu ndax imaamu Ashari lim def ñëpp képp ku jàng ilmul kalaam wala ilmu tawxid da gis taxawaayam da gis fi mu jëlee nit ñi ak fi mu leen dugal danga gis ne lim dàq yëpp ci alquran ak hadis la ko teg lim nangu yépp itam ci alquran ak hadis la ko teg Malik ñépp xam nañ ko imaamu taarix hijra daan nañ wax ne fatwa mënta am ci keneen feeg Maalik a ngi fi ci Medina fekkee ci Medinatu Munawara ci dëkk yonant mu nekk fa imaam daaril hijra kooku xam-xam bu jugee ci moom dana sell imaamu Junayd bi nga xam ne moo wax ne wallahi ma wasalu la wasalu ma rajaw nit ñi wax ne àgg nañ ci yàlla ba pare dafa dëppaat di def yu ñaaw yi comme ni ko oustaz waxee yokkul la xëy batog raxbatu waaye mu yokku la caay-caay ak mbañeel mu ne egguñ buñ àggoon duñ dëpp mukk wala mu ne wasalu walakin wasalu ila safar egg nañu waaye safara lañu àgg ne nga lépp loo xam ne toq na ci xel ci niraleeg yàlla rek ute naag yàlla ndax lay sa kemis li xel mënu koo dàkk ba tax lépp lu xel xalaat rek loolu am na loolu loolu utee naag ni yàlla mel wax nga ne nit ñi léegi bala ñoo dimbale nit soal taajis lañ koy def ana fu yàlla nekk soo ne mu ci kaw ñi nangu soo waxee feneen ñi ne déedéet yàlla nee na foo wa rabbi samaay wal ardi innahu la xaqun ba muy wax ci wërsëg borom asamaan ak suuf ci aqrabu maa yakunu abdu ila wa huwa saajid fekkee dañ koo def ca kaw itam yàlla moom li wax du loolu fi jaam bi gën a jegee boromam mooy mu sujud wala mu nekk ci julli te bu dee dañ naan jébbal nañ ko boromam gas suul kon kay nekkut ci ko walla kawe gi kawe maanaa la ndax Abdou Diouf moo nekk ci kaw réew mi taxul ne këram fi sut am na étage bi sut pale bi foofu kon kawe maanaa la du kawee zahir gi ñu foog nee nga alquran léeg mu waxee li passé jublu ci li ñëw atee amrullaay mbiram yàlla taxaw na wala bés penc taxaw na li tax alquran man a waxee loolu te kenn du ko weddi mooy ne yàlla lu mu wax rek loolu luy am la bés penc taxaw na mooy ne xatman dana taxaw kon su ko waxee ci li ñëwagut jublu ci li ñëw ndax ba mu ko waxee saxaaba yi ci seen dégg arab dañoo jug taxaw foog ne lu ñëw la yàlla ne fala tastaajilu bu leen yàkkamti maanaam wax ji daf ko taabir ci li passé te lii ñëw lay wax lugal arabia moo mel noonu da wax leen jubli ci lépp wax waqtarib bu ñu ko waxee gaa yi ñu ne su juutal jege yàlla déedéet julli la ci namm waaye dafa jël parti ci julli muy sujjuut nga xam ne ci ngay gën a toroxloo yàlla mu ne la sujjuutal jege yàlla kooku dafa wax parti ci lenn julli jublu ci julli yëpp da wax itam lépp jublu ci lenn naan naa géej gi mënoo naan géej gi tuuti nga ci naan da wax lépp itam génnee ci leneen comme ni alquran wax man kaana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail képp nekk noonu yàlla ak malaaka yi ak yonantam yi ak jibril ak mikail xanaa jibril ak mikail du ña du ñeen ci malaaka waaye loolu dafa takbiir seen place moo tax ñëpp ci saal bi ustaas a kooku maqaama ustaas nga yëkkati nit ñëpp a ci saal bi ustaas a xanaa ustaas du nit nit la waaye maqaamaam nga yëkkati alquran dafay waxee noonu arab di waxee noonu kon nag loolu terme yu ñu war a dégg la terme yu ñu war a jàpp la li waxitam wax itam innama ana basharun noppi te mottiloo aaya ji loolu bari na ci yoo xam ne ci alquran sax dafa xaraam inna allaha faqirun noppi wa nahnu agniyaaw mu ngi ca tegu sanaktubu maa qaalu yàlla miskin la wala faqir la rek am foofu kooku alquran daf koo xaraamal kon mandute mooy booy joxe xam-xam bul jël li la intéressé jox ko nit ñi sa bañ a jàll ci lépp loolu du mandute amaana ilmiya dafa laaj li nga xam nga joxe ko ci lu wér benn borom xam-xam bu ñu doon jàngal ci université Azhar daf ñoo wax ne moom day doomam daf doon def doctorat waaye dafa dem ci ñu ko war a professeurs yi nga xam ne ñoom lay euh, ñoo ko encadré mu ne leen kii bu ñëwee na ngeen ko daan kii daal bu leen ko bàyyi mukk muy am doctorat ñu ne ko lu tax mu ne kii amut amaana ilmiya su amee xam-xam itam man ruut ñu ne ko ah lu tax ndekee paa bi lenn waaye moo taseeg moom ne ko waaw xaji waa ahli kahf fi nuñ mel paa bi ñëw di gëstu téere yi di seet di seet doon ji ne ko waaye defal ne leen du ñuul la rek xaj bi ñuul la woon li ngay sonal sa bopp jaru ko mu ne ah kii nag gannaaw fii la teg xam-xam buñ ko joxee doctorat dana yàq àddina bi ndax amut amut kii amut amut mandute ci joxe xam-xam wax nga buur boobu nga xam ne dafa jërmeloon ba mënta am doom ak ni ko sàmm bi eewee ba mujj dellu si ci dëkk istawa alal arshi wax nga ko ak li bàyyi waxoon waaye ci 1937 al istiwaawul maalum wa suwaalu anhu bida wal kayfu majhul wa azunnuka min ahli suu na gaa yi génnee leen ko li imaam Maalik waxoon imam al-bukhari wax nga ni muy taarifee wala ni muy présenté gunta mi babul babul ilmi qabla al qawl wal amal baye mo ne tafsirat al anam fi an al ilma huwa al imam xam-xam moy njiit ci lépp wax nga itam wa kayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa man amridun xool jaan muy dem ba mu raw la nga topp diis bi loolu amul njëriñ loolu bëri na ñu bari ñu dal fii ci Sénégal nit ñi jugee feneen di jëriñu ci bàyyi ñoom ñi koy xool naan kaala gu rafet geeg oto bu rafet bi ba mu xëy jugee fi bàyyi yàlla daf ko joxoon àddina teg ko ci loxoom def gëm yàlla rek ci xolam bi mu soppandekoo li ko yàlla jox lépp ci li neex yàlla boo demee Medina léegi xool jumaa ji ak si bàyyi dëkkoon rek da nga xam loolu wax nga ci taalib misri bi ak lala baay wax ne la li muy yawata waaye keneen ku ko liir du dégg li nga dégg loolu rek mooy dëgg li ñuy wax ci maarifatu billahi yépp ñu ngi ko bind ci téere yi waaye nag lu ñuy yëg la mais duul lu ñuy dicté nit maqaamaak wilaayaak maarifaak yépp yëg la duul lu ñu lay dicté kenn mënu la koo dicté suukar dafa dafa dafa neex waaye pour xam li muy saf il faut nga mos man zaqa taama sharabi qawmi yadri wa biduni zawqin maa duri boo mosul rek doo xam ne muy saf kenn mënu laa dicté ba nga xam ndax yëg la rek ca bàyyi na xam yàlla du yokk xam-xam dégg lay yokk bëri na am na benn jigéen bu tarbiyoon bi mu dafay toor naan ndekete yoo maa yàlla maanaam moom li ko jaaxal rek mooy li mu nekkoon ni ca xamul yëg la rek du leneen lu luñ la ko digte digte du jëriñ moo tax li nga wax ci waa ji waxoon ne mën naa jàng rab arabiya te du am sëriñ ci naxwu ca mën a jàll kooku mënta am taqullahu taxu ilayhi wasila képp képp koy wetti alquran nga wetti ndax ndigal la lu jugee ci alquran du talab talab mooy su ma digganteeg yow sama morom nga sa moroom laa soxla naa laaj la suba nga soxla laaj ma bu fekkee nag dañoo nekk ci place di liggéey ma supérieur la kooku du ma demandé ci yow service dama lay jox ordre nga exécuté yàlla buy wax dafay joxe ordre maaye du sàkku ci yow pour nga def maa farat naa fi ci min shay alquran lépp a ngi ci xanaa ku xam ak ku xamut benn waaye daf may wax ne ma dafa romb benn waaye mun ne ko yéen yéen a wax ne alquran lépp a ci mu ne ko waaw mu ne ko léegi li ma lay laaj rek fukki kilo fëriñ ñaata litre yi ndox moo ko mën a tooyal fu ko alxuraan waxee waa ji téye ci loxo bi dem ba ci boulangerie bi mu ne waa ji ne ko fukki kilo fariñ ñaata litre yi ndox ko mën a tooyal waa ji ne ko temps ci litre ndox waa ji ne ko bàyyil suma loxo man laajuma kii alxuraan laa la wax mu na ko waaye alxuraan moo na ñëw bu ngeen xamul na ngeen laaj fasalu ala zikri in kuntum laa ta'lamuna man xaw ma laajte naa kay kon alxuraan a ma wax nga ne war nañoo xam tarixa Junayd ak liñ ko sosal waaye loolu yàgg na fi ndax yonentu bu toogee di wax ne man kazzaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maqadahu min annaar yàlla sosal nañ ko am doom waaye yàlla nag du may Junayd lu mu mayut boppam loolu mënta nekk gannaaw yàlla lañ sosal sosal yonent il faut ñu sosal Junayd sosal Cheikh Tidiane sosal Baye Cheikh Tidiane nag dagaate na responsabilité am ne na ida samitum anni shay'an fa zinu bi misani shari maa waafaqa fa xuzu maa xaalafa fa turku wax nga waajooju doon oote xutbaan yee ñëw kawlax ak na ko bàyyi def ba mu mujj eertu waaye yàllaa ko may chance rek ndax bàyyi képp ku doon taalibeem chance la rek pour nga nekk taalibeem waaye du góorgóorlu du am xam-xam aman Mahmoud Kors ba muy nekk taalibe bàyyi contre bàyyi moo taxoon muy seet bàyyi ba mu gisee bàyyi bàyyi ne ko noo tudd mu wax ko benn dëkk ci Mauritanie ne noonu la tudd bàyyi ne ko xanaa yow doo Mouhamadul ma Mahamad Mahmoud ibnu Mouhamadul Kabir mu ba daanu ci ndar daanu xëm ba mu jugee bàyyi ne nañ ko yóbbu fekk bàyyi ngi jëm si kaw la mu ngi ànd naar mu ne bàyyi ne ndax mën naa jël naar bi ñu dem bàyyi ne ko maazallahi an naaxuda illa man wajadna mataana indahu maa ngi muslu yàlla jël koo xam ne fekkuma suma bagage ci moom maanaam jàpp nit tuumaal ko sàcc ca fekkuma sama bagage ci moom maa ngi musul yàlla loolu wax nga woowoo maakum ay na maakuntum bi zaati aw bi ilmihi ne jëmm mën sa tàggoog melo dëgg la wa maakun naa xaay bi na yàlla moo ko wax nga ne dàq lu mësta am te du am ak saxal lu mënta ñàkk loolu rek mooy faalam annahu laa ilaha illallah